diwaan nag mooy barab boo xam ni dafa dajale ay tagg wala ay xasida yum defar moom nag ay tagg la yum tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy juróom benn façon tagg su ko defee nag lii moo di muqaddima bi gannaaw bismillahi rahmaani rahim salla salla yàlla na doole xewal allah ala sayyidina sunu sang Muhammadin Muhammad wa alihi wa sallam doole musal نزهة الأسماء أي هذه نزهة الأسماء لما يفعل النب والأفكار القلال يرم بسو ندعم في فعل وعي النب دقل لنبق دقل لن يفعل وخلال تفهم لك النب من التربينك ما يفعل النب خلالي في مدينة أمين كتاق كورك كورك ما كان ما ينتهي على محمد صلى الله عليه وسلم ومعاي المختاري lii mooy maanaa yuñ tànn yi dégg nga li cheikh ñeel sëriñ bi ko defar lii nga xam ne dafay noppal nopp mu dégg ak i xalaat mooy sëriñ bu mag bi cheikhul akbar wala alamil ashar mooy drapeau bi gën a siiw dégg nga moo di drapeau bi gën a siiw ñëpp xam ko wa taqil abar wa taqi mooy ki ragal yàlla al abar ki gën a baax wa naf yi mooy ku set ka al abxara ki gën a xéeme ci taar al abxar mooy koo xam ne taatam taaram bi dafay not ñëpp loolu mooy al man ka nga xam ne jalaa feeñal na dayaa wala boog jalaa wuññi wala jalaa dindi na dayaa bi dayaajil xuj bi lëndëm yaa moom ay kiiraay la lum ko dindee bi shamsil xirfaani si jantab xam yàlla wamaxaa fee faar na xuyalaa ashakki rëy moom sikk la bi sarixi taxqiqi ci aji leeri dëggal wa tibyaani ak leeralu xol su ko defee mu ne kitaab bi mooy sëriñ bu bu doon lislaam ña koy liggéeyal dañ leen di darapo drapeau nga ne borom drapeau bi gën a siiw moo defar bii ki nga xam ne ku ragal yàlla la gën a baax ñëpp ci set ki nga xam ne mot na ñëpp ci mbaaxam ak setam maanaam kooku bëgg a roy moo ko roy ki nga xam ne moo dindi lëndëmi kiiraay yi kiiraay yi nga xam ne ay lëndëm la yuy lëndëmal xol dox diggante nit yàlla moo ko dindi ana nu ko dindee dafa feeñal rek xam yàlla ci àdduna goo xam ne dafa mel ni jant sikk sàkk gi nga xam ne doom adama yu bëri ñu ngi ci nekk ñenn ñu mën koo wax ñenn ñu mën koo wax muy question yi nga xam ne ñu ngi koy laaj seen borom anamu fu nekk mooy kan yooyu mënuñ koo firi sikk sàkk googu doon dal nit ñi moom moo ko dindi moo ko faar lu ko faaree lu xóor te leer lu xóor leer naññ sarixi taxqiq mooy lu xóor a xóor moom xam yàlla gam lay xamal du ànd ak sikk afillaay chekku ndax yàlla am na sikk moom nag bu ànd ak moom laabal la ci dégg nga rëy ga nga nekkee woon te fekk sikk rek moo ko waral num lay laabale jox la lu xóor te leer damay bi sarixi taxqiqi wa tibyaani leer loolu amati làmbatu wa jarada bocc na mooy génn na say fal azmi jaase ba moom dogu la wa ijtihaadi ak góorgóorlu fi ixyaay sunnati xeyril ibaadi ci dundal yoonu gën ci jaami mu ngi amoon dogu goo xam ne ci dundam dogu googu ak farlu googu ak yitte googu dafa mel ni jaase jaase lu mbir dëgër dëgër bu mu dog waaye yitteem ak dogom lu mbir jafe-jafe gàllankoor gu mën a am bu ko bu fa jaaree rek mbir ma dal di dog waaw jafe-jafe bu gàllankoor julli ni ak lu mu doon moom bu ñëwee rek dal di ko dog nit ñi mën a jàll comme ni nga xamee ne noonu lay jaase di les situation yi gën a jafe loolu lépp mu ngi ko doon def nag dindi gàllankoor ngir dundal sunnaay bi ci jaam yi waaw sunnaay yonent bi saa yi naroon a faar mu dindi ko moo tax amul mbootaay guñ bokkut ci jurit ñi dégg nga xamul journal bu mu doon lire si jamonoom ji xam ne tukki yombul woon dara yombul woon journal yenn arab yi def sa da ko daan lire dégg nga noonu lislaam pexe buñ pexee lislaam rek mm, bokkoon na ci ko doon dindi noonu la amee dogu noonu la amee woon yitte xamu si chériat yi mooy dictionnaire chériat maanaam xoolal rek du def lu may lu lu digle ba mën ngaa wax ne boo bëggee xam chériat daal xool ko boo xoolee dundam daal mooy dictionnaire bu lay leeralal lan mooy dund yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala xaqiqa mooy dictionnaire xaqiqa boo bëggee xam yàlla rek xool ko mboolem question yi nga doon laaj sa bopp te mënoo koo le nga am ci jaaxle ak ak lëndëm lëndëm ci sa borom boo ko xoolee bu baax ba gis ko moom sa xaqiqa daal di leer kon mooy dictionnaire bi ñuy régler sharia nit ki mooy dictionnaire bi nga xam ne ku bëgg a régler dara sa xaqiqa ci moom ngay dellu bu man baaxi sirri mooy balluwaayu mbóot mooy ki nga xam ne mboot yi jëriñ yi ci moom lay génnee waaye ku ne tariqati mooy ponk tariqa bi tariqati jan dégg nga moom mooy ponk ba nga tariqa kat yoon la yoon woo fa mu jëm mooy moom maanaam bu ñàkkee ci tariqa rek mbir ma doy waar cheikhina mooy suñu sëriñ ustaadina mooy suñu ustaad wasilatina mooy kañu yeggali laa rabbina jëm suñu borom cheikh El Hadj Ibrahima cheikh El Hadj di Cheikh El Hadj Abdoulaye doomu Cheikh El Hadj Abdoulaye bun Seydi doomu sang bi Mouhamad bun ma Demba doomu ma Demba bun Bakr doomu Bakr bun Mouhamadul Amin bun Samba doomu Samba bun Rida bun Samshiddin ñu koy wax dégg nga Maseeni bun Hamid bun Habibillah bun Rida bun Ibrahima bun Sadiq bun Safar yooyu mooy firi doomi nangam rek bun Batuni bun Adaat bun ma ma ma Kumba. بن عقبة بن نافع بن عبد القيس بن عقيل بن عامر وربا نينا ني نيو جاي مامو مو كي مو تاريخ ما دي ان مودا جي تاغ سيد انا ميسان سانغ مندي في الشمس الظلامي اكي قام مو جنتك لندم بو نيوي لندم جوغي في سيدنا سيد سانغ ومرنا سن كليفه محمد محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم درك مسل غورغو ما دي لي واخ ني لب كي لا رون moy ki nga xamni ni moy sangu kuy mbindeef moy jëntab mo mboolem lëndal moy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la ron tag ci téré bi mahbubahu moy kam bëgg yonentu bobu mom la bëgg bàyyi yonentu la bëggoon allazi yonentu bi nga xamni la laa dañ mukk yahimu di gërëm bi ci mom ban yonentu la bëggoon yonentu bi nga xamni sa su nekk mu ngi gërëm ci mom ndax kat yonent bi mom sax dajalul boppam waxuma laa keneen ngir maa rek moy sa su nekk rek yaa ngi xam lu bees ta yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxawut beneen yo benn yoon moo loolu la sëriñ bi waxoon ca wayam wa léegi-léegi borom xam-xam yi bind ko seen téere ya ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu diyeeg ci maqaamaam ba léegi moo mu ne saa saara xayru naasi sirtu waraahu dégg nga yonentu buy dox rek ma dox ci gannaaw maqaam bu mu jéggi ma fi sama tànk yonentu dañu di dem moom dañu di ko topp wala mi tax jàpp say dan sang si waaxu bu dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa amul xarit si waaxu bu dul yonent bi amul sang ku dul yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul xarit ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii nag dawaa wii diwaan la mooy ay xasaayit ay way yuñ dajale barab bu nekk ñu tuddee ko diwaan مرتبات توبلانت على حسب أزمتها كم أي بومو ما نعم كم نمكو نصيرك تيرك إيه، دا غور داف جاي حرف حرف نانغام حرف نانغام حرف نانغام بام جيخ توبلانت كو ام نيو خامن نولوكو ديفي توبلانت كو تشوفو فا بجيتي moo tax mu ne dañ koo toppalante diiwaan yi ñu toppalante rek ci kem niñ ko nose kullu xaal ñoom ñëpp benn bu nekk ñoom mu samman la luñ tuddee la isman tur woo xam ne yushru day xamle bi muqtadaawu lam lamboo maanan ci maanaa wa lafzan ak baat diiwaan bu nekk rekk maanaa yi ci nekk ak baat yi ci nekk dafay xamle nañ tuddee diiwaan ba boo xamee nañ tuddee diiwaan bi boo seetloo diiwaan ba rek loolu awlaa ba ci njëkk tey siir wusul yi yombal ak xegg ila xadarati rasul jëm ci pee bi yonent bi diwaan boobu moo ci njëkk boo ko jàngee bu baax boo yeggut ci yonent bi ce qui yaay na maanaam boo jàngee diwaan bi nga xam ne tey siir wusul la ba mu yegg ah dana la yombal ak xegg ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax dana la ci xadara yonent bi sallallahu alayhi kon diwaan boobu loolu lay jëriñ diwaan bi si nekk mooy taysirul wusuli yom yombal ak xegg ila xadrati rasul jëm ci pay yonent bi wa saaniha ñaareelu diwaan bi mooy iksiru saadaati fi madhi sayidi saadaati iksir matière la mbellit la boo xam ne dafay jël pëdëm soppi ko mu wurus kon diwaanu ñaareel ba dafay fekk ku bon mu soppi ko muy ku baax fekk ak texaadi soppi ko muy ku tex kon bu la bàkkaari sonalee seetlul diwaan boobu jàngat ko bu yàggee mu dindi texaadi gi nekkoon ci yow def ci yow texe loolu mooy iksiru saadaati soppi texaadi yi ñuy ay texe lu mat yi sayidi saadaati mu ne mu ci tagg sangu sang yi yonent bi nga xam ne mooy sangu sang yi tagg ko ci la ñuy soppee te xaar yi def ko muy texe xasida boobu noonu la ko tuddee nga dee gis ne kon dana tagg baati xasida bi da tagg yonent bi maanaa xasida bi dana ci da dana da nga ciy ndeke mën naa soppi te xaarig nit def ko mu dig texe wa saali soi ñetteel bu mooy salwatu sujooni fàtte njàqare yi fi matin nabi yi ci tagg yonent bi almamunu kañ wóoru ki kon xasida boobu it boo ko jàngee rek mu fàtte loola njàqare yi nga xam ne nii yaa ngi ko doon yëg maanaam bi doon fàttali baat yi dafay tagg yoon teela Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waraa bi waa ñeenteelu diwaan ba mooy aw saqul xoraa fi matxi sayidil waraa buum yi gën a dëgër ci tagg sangu mbindee fi aw saqul xoraa buum yi gën a dëgër fi matxi sayidil waraa ci tagg sangu mbindee fi da gis foofu ne تغوم تغدير الله محمد صلى الله عليه وسلم نون مكو تغي دينغا ديك موي فاصون تغي غنا كاوي سي تغي وجانغي خفي و دنج جيسي لور خول اسلوب تغين باغ نين كو تغي يونت بي وخامس اجر من الشفاء والاسقام سافر فيبري مو خام فيبري ظاهري و باطن لا في مدح سيد الانامي سي سانغو سي تغ سانغو ميندي في كوكيت دنج فا غيس نيو دينغا تغنا يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم waaye tagg woowu dana saafara jàngoro yi nit ki kon du ñàkk foofu saam na xasida yoo xam ne xëy na ñàkk xam noo ko jëfandikoo waaye daal mën naa faj sa feewar bu ne wa saadisuha juróom benneel ba manaasiku ahlil bidaadi mooy jaamukaay ñooñ ñooñ cofeel ya fi madhi xayril ibaadi ci tagg gën ci jaam yi dégg nga kon ñi nga xam ne ni dañoo am cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga nan la ñuy jaamoo yàlla ci de yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana ko jàngale foofu dégg nga maanaam taggoo boo ko xoolee da nga xam ban teggin moo war sa diggante ak yonent bi fan nga war a jaar sa diggante ak yonent bi ba yàlla gërëm la boo ko rek da nga gis lu mel noonu da nga xam fan ngay teg sa tànk daal waaw xam nga manaasik moo aj moo ko am am aj moo am ay jaamukaay yàlla waaye ku jublu yàlla it kooku jublu googu mooy bu mag ga su ko nag jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay meloom rek ci lay jàpp ba jubloo mën a wér xasida boobu nag boo amee cofeel jublu yàlla dana la waxit fan ngay teg sa tànk dégg nga ba jokkoog sa borom loolu it mu ngi la koy xamalee ci biir tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga déggee si ne kon nekk tagg yonent bi du rek comme géwal buy tagg rek jéeram waaye tagg yonent ndeke ndeke ay leçon yu jeex moo nekk ci biir ndeke tagg yonent dana fàttaloo njàqare ndeke tagg yonent dana dindi texaat yi def ko muy texe ndeke tag yonent dana yombal xegg ci péem ndeke tagg yonent dana faj sa jàngoro yi ndeke tagg yonent nit mën na cee taxaw ba xegg ci boromam maanaam ndeke tagg yonent mooy tagg ko waaye génn wala ay jikkoom yi nga xam ne dana defar àddina nit ki ak àllaxira dégg nga diwaan yi loolu rek la lay junj ne la yonent bi taggam du comme waa yu diw mooy maamam diw mooy maamam diw mooy maamam mais tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ciy gisaale yoon wi mën a régler sa problème yëpp àddina moom noonu la tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa min ha bokk na ci am si xasida yi maa la nga xam ne foofu moom mu rattabu luñ toftalante la alal awaaxir yi wala tartibi abata hak deng alif bata sa deng mm, am na yoo xam ni alif alif bata sa la euh, mu xol taftare ko alal awakhir alal awakhir na euh, ya mujj lay jël dégg harfu ta njëkk ba ci ci ya ba ci alif نظرا لقول مصنف كتب اللغه ني تعرف تير اللغه ني تعرف تير اللغه دا فام ньо خاني الف با تا سا لاني لاني تعرف بام جيخ ام ньо خاني ابا جدا حوزا ام ньо خاني دا فا جيخ الف با تا سا توبلانت تير بي سي كيم حرف يويو ومن ان شي ما لا يقره مرتب ني توبلانت على الاول تي حرف نجيكي او الاوائل ولا حرف نجيكي ولا اخر مجي ام ньо خاني نا الف نجيكي جي خير جيل الف الف تك سي با تك سي نانو لي لي سامو جاخ jël xaruf alif léeg-léeg mu jël ji jiim léeg-léeg mu départ ak demee ah, nga mm, am na yoo xam ne al awaayil ci xarfi njëkki la wala awaayil ak njëkki wala waaxir ak mujj yi wala tartibi abajada ak ci toppalante abajada am na yoo xam ne xarafi abajada yi la jël xarafi abajada bokkut a xarafi alif ba dégg nga moo tax da nga gis xarfu alif xarfu nangam xarfu nangam xarfu nga gis xaraf woo xam ne alif la baa waroon cee topp topp ca maanaam miim topp ci wala nangam ak nangam yooyu yëpp li andi mooy parfois daf koy toppalante kem xarafi ni mu toppalante parfois mu commencé ci mujj ga ñëw parfois mu commencé ci njëlbeen bu bas kanam mu ci mujj gi jaxasu la léeg-léeg mu toppalante ko comme xuruf abajada yi léeg-léeg mu toppalante ko xarif alif ba taa taa jeex nazara ngir xool lil maani ñeel maanaaya wal asli ak cosaan ya wala ahdaad ak limi dégg nga waral mu defee loolu nag mooy maanaa yam yam bëgg jàngale dégg nga ak cosaanu xasiida bu muy bind xëy na bu bëggee bind ci loo xam ni mën naa andi tawxid ak wetal mu jël alif xëy na léeg-léeg mu jël mu bëgg def xasiida bi nangami bayt jël xaraf woo xam ne nii lii ak bayt yooyu xëy na ñoo tolloo loolu daal moo waral ay sew sew yooyu moo waral mu defee ko loolu loolu nag dafay nga lu ñu tuwaat bayt yi bu nekk nga xool boo gisee bayt boo xam ne moo xarafam ñoo tolloo lim ndax xarufu abajete yi bu nekk dafa am lim alif benn la ba ñaar jim ñett daal ñeent noonu xasida boo xam ne nii moo xarafa ñoo tolloo lim nga xam ne lii moo tax mu tuddee ko dégg nga bu am na xaraf xam ne am na lu muy junj parce que faare mu junj firaq waaw mën naa junj wisaal te léegi mu andi xaraf ndax la muy jàngale ci xasida bi moo xaraf ba lañ dégg nga ñaareel yu mel noonu ñooy waral mu defee noonu wa kullu baytin bépp bayti minaa ci moom انتوا ما لم تقصد يب انتوا لقنا فيك من المعاني كما انا يقول علم الباتنا قم قم ينبي ما لنا قم تقصود انا قتل لبيتهم المجلدات مجلدات من تاريخي مجلدات من تيري فتيري فتيري فتيري انا ما انا هنا كتبت قصيدة قصيدة بوجه لك ما انا هنا كبقرون صحا خجبت اي تيري تيري وحوالقنا من البلاغة تقم قم البلاغة wal maani ak xam-xami maana dégg nga ak zaahira yi aji feeñ ak durara wari si durru al yetimaate da way jéem dégg nga xam-xami balaaxa ci xam-xami balaaxa la bokk rek su ko defee eh, am na ci loo xam ne ni mën nga koo tuddee jirim maanaam lam def ci wàllu balaaxa téere bi ni mu amee balaaxa ak ni mu amee fasaaxa ku jàng balaaxa naan téere bi mooy wursu amul morom wa amul kenn ku mën a taarifee ci lu amee balaaxa comme moom loolu la bëgg a wax xamaa laqana min al balaaxati ci xam-xamu balaaxa wal maani ak xam-xamee maani xam nga tey balaaxa moo lay jàngal tey maanaa waxin tey par exemple nit mën na di junj haada ismu ishaar la mën na junj junj goo xam ne lam ci jublu mooy xeeb ko mën na junj junj goo xam ne lam ci jublu mooy màggal ko façon xam-xam yi lay jàngal yooyu ak façon bo wi yéema yooyu nga xam benn baat bi man nga ko wax kiram balaaxa da fay ne baat bi fi li nga ci djublu nga utiliser ko ci beneen barab wa ci benen mana ni ko ismay saara lene leeg nga nga djublu ko a haada huwa sariq ki moy sàcc bi de dang koy xeblu wala hada huwa al amiru burbangi dang koy magal sa defa ci ni ko waxe mom nak amna ci façon waxini yoo xam ne ak wax ju jot balaaxa moy wax ju neex jo xam ku ko dégg da nga koy bëgg deg dang koy bëgg a teewlu da ngay bëgg wax ji daf lay neex daf lay yem def na ci loo xam ne nii mën nga ko tuddee ay wurus yu ñàkk morom maanaam xasida bu nekk rek béyt bu nekk rek wurus la wu amul morom yow dafa rafet rafet rafet ba mën ngaa wax ne keneen mun defar ni lu mel noonu wala daal yombut fa yàlla xaa cey moom aw iyatan mu di ay ndax mu ne ne xiyaani ci ay wurus mashhuratan yuñ feesal asraaran ci ay mbóot mu ne daal na nga wax diwaan bi diwaan bu nekk ndab la loo xam ne baat ya fa nekk dafa rafet ba mel ni wurus maanaa yi nekk ci biir baat yi nag mooy mbóot yi nga xam ne ñoom lañ feesale wurus yooyu baat bu nekk daal diwaan bu nekk ndab la baat yu rafet lañ tànn ràbbee ko ko waaye maanaa yu yéeme lañ ko feesalee maanaam biit wurus ba ay ma ay mbóot yu yu yéeme ñoo ci nekk ba mu wasi xattan ñu rafetalee ko badi an xam-xamu badiya wa bayaanan xam-xamu bayaan dégg nga mm, dégg nga xam bayaan xam-xam bi nga xam ne ñun balaa xam ko jàngat dana la gën a leeralal jege la ko comme comme comme comme tashbih bi demee xam nga mën ngaa wax ne mën ngaa gis mais nga bëgg misaal nit ñi ne dafa jàmbar nga ne fulaan asadun diw gaynde la loolu ma ilmul bayaan moo ko jàngale dégg ba dee mooy yi nga xam ne mooy indi baat yu baat yu yu yéeme yu rafet comme nga nga yu bokk daaneel ak yooyu muy hmm? wala nga indi baat indi safaaram xam nga boo waxoon azahir aji feeñ wala waaqif aji taxaw xam nga loolu wax waxi caaxaan la ku feeñ lu feeñ kay aji nëbb la ànd ak waaye boo ne aji feeñ aji taxaw kooku ñàkk ñàkk xam-xam ba dee la defee moom nag mboolem baat yi na koy rabbalante dafay nekk ni ko arab war a rabbalante day am badiya am bayan in raaha bu gisee baat yooyu àla ribo ci xelu a zahiri ki ka jug feeñ in saqa xoteeku na xalban ci xol di balaaxataa ngir balaaxa nga ci nekk wooyam bii daal su ko nitu zahir xoolee waaye ku am xel xol ba moy dog ndax wax ji balaaxa gam cee gis dafa yéeme husni nazmiha ak rafet ak noseem way wi niñ ko rabbe daf koy yem manam nitu zahir bu ko xolé dana xéem way wi lol dana diw deug deug kiyee meuna way awil kamil wala ku mat al baat ki ka ju batin sakira dana mandi saaji ren daaji sujjóote an ha fu buntu xasida yooyu waani yen doyde an fahmi fahmiha ci deug deug deug qasida yoyu te suq dana qatti al qalb qalba qabla al ihaabi njëkk yaram wa dégg mune nitu mm, baatin bu fekkee nit ku mat ku am xam-xamu baatin bu liire xasida yi rek di sujjoot waaye dana xam ne ndeke ndeke daal ndeke daal dese na ndax dana ci am loo xam ne mënu koo dégg dég nga dana ci am façon xam-xam yoo xam ne dégg-déggam bu fa moy mooy waaneel ma aji dooleel fahmi ci deg ko bala muy xotti yaramam dana xotti xolam maanaam xam-xam bi dana xotti xol nit ki dugg ci yaram wa ba moom dootu yegati sax bopam boppam fi dana lem al hijaba kiraya tay sijilli kem lemak maraka walil lil kitaabi tere téere tere ba denga ni malaaka di leme téere yi noonu lay xasida yi di lemee kiiraay laa tuaadu mënuñ ko baamuwaat mukk xasida la yoo xam ne dégg nga mm, kenn du ko baamuwaat mm, dégg nga dégg nga dégg nga bu mortaabun ji sikk nag moom dana dellu mortaaban dégg nga laa toxaatu duñ ko delloo kon duñ delloo murtaabun aji sikk murtaaban di aji sikk xasida yooyu nit ku doon sikk sàkka wala nga doon am jax-jaxal ah xasida yooyu boobu jugee doodoo sikkati wala dajiran du dellu mukk di aji xat mun taabun aji baagante kuy baagante ci xasida yooyu di ko liir doo delluwaat mukk de doo jige jugee mukk xat sa xol di xat maanaam la nga soxla woon ci xam yàlla la nga soxla woon ci am mbaax la nga soxla ci booy liir xasida yi rek am ko loo gën a baamoo xasida yi dégg nga mu gën laa leeralal loolu lay wax ne laa tuaatu taagi nag jaaxal na ma ci dégg hmm, dégg duñ delloo murtaabun aji sikk murtaaban muy aji sikk ab sikk sàkk daal du am ci xasida boo gannaaw liir ko wala dajran du nekk aji xat muntaabun aji bagante ci xasida yooyu wala tatatarraqu du fëggu دينغا الا شريعه لموي يون محمد تن بك جو محمد قصيده يوي بن فغ لموي بنت بني حب الجمال شي يون محمد انا دورا دوغل مك لموي شي يون يونس الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقول دو مك الا ثوابا لموي نجوب قصيده يوي دي نيوخ لموي نجوب دينغا ولم لا تخبى قصيده يوي مل نون وهو تكي كو طالب الشيخ موي سيرين الذي ما خمنه تدلت يورنا من أسفل أخمته يسوف تنكم يا يوافي خل مشيخته يخيا يخسي كم يوافي دنگ مو يخي كاني بوبي مانام بوبي يخو كانم غا يخو غناغو فني دجي فنيار يخي دجي يوافي سيرين بدون ابن دلا نني sëriñ cëb seen yàqu bopp ba mu ngi ci ron tànk Cheikh Ibrahima boobu loolu dafa junj rek la Cheikh Tidiane waxoon xadamaa yaxaateen la aqabati kulli waliin lillah maanaam moom tànkam yi moom ca la kaa ngi boppee nekk mu ne ku defar loolu nag xasida boobu noonu rek la mën a mel wate san na ba muy ndaw kon nal olaa doj yaa moom ay kawela wa chamaarixoo ak njubbu ba mu nekk ci la yéeg ci doji kawe ba ci ya wali da jureef nañ ko xutban mu di xutb kaamil xanaa kaamil lan la war a mat doon de wala ko yaakaar kaamil lan daa ji mat wana saa sos na aaliman di borom xam-xam dégg nga aamilan daa ji jëfe xam-xam dégg nga allafa taarif na fiye min ci aw bis ko te fekk mooy ibne shirin doomi ñaar fukki at la ñu am ñaar fukki at ak teg tuuti rek taayif na téere dégg nga ñoom dañuy wax ibnu nangam insérin wala ibnu salasin fekk fanweeri teg na tuuti waaw ah, waaye matagul ñeen fukk moo tax ñu waxee ko noonu wa wasala jokk na war a xaamuy kawe al jëmma mbooloo ma alxafiira gaa ji bëri qabla salaasina fanweeri at balaa muy fanweeri at taarif na ay yu bare bëri bëri kawe ci borom xam-xam yu bëri fala ma tanaax ba mu yeggee almahamidu sant yooyu jëm ci moom waam saa mu mujj kullu matlubin mboolem luñ sàkk xaadi àndaa ji toroxlu la day fa moom ba nga xamee ne lu nit di am ci lu mbaax rek am na ko lépp lu nit di sàkku rek lu yomb la fa moom jaala nag tourné na jamial wijhat ci mboolem jubluwaayam wala boog jaala continué na rek parce que mosu see jug jamial wijhat ci mboolem jubluwaayam kama kaana kam nam nekkoon في مدي سيد البشر ستق سنگ من في والنور أغلير الذي ما يخلق امتد تعللون وانتشر تفاهم ثم ما بعم لب تلقنا قير من غا خوربوك نيل كنت نارك حالم بم كما سيوان من تق ينجال محمد صلى الله عليه وسلم من يحن ما يسنگ من في من يحن ما يلير جي تعللو تسارو دج فب يسو أنه بغا خمين مومو ما استغل موسى مسوسخ وقت المك إلى به لمجي رجال محمد صلى الله عليه وسلم ولم يمدح تقود سواه كل يرنتبي ولم يقف تخوت إلا ببابه لمجي بنت يرجال محمد صلى الله عليه وسلم وليس نكت هذا لي مقدار مدائه لدويب أي تقل له نيال يرنتبي نيكون لي رغل تق يرنتبي بل لي فنك هندو نيك نفهم من القوافي moom دانيل فيه fii ci ay daaneel fii يقف دانا yonent عنده فموم alinshaaw sos walinshadu ak jooru way kuy jël way yi di ko sàmmaawu di ko wax ca kaw ak kuy bind xasida moom defar na ay daaneel xawaafi mooy mujj bayt yi defar na ay daaneel ci tagg yonent yoo xam ne ni boo ñëwee ba liir ko rek ah, dang ci taxaw waaw bu loo loo dang doon woy ay xasida boo ñëwee ba fii da xam ne kat bii kat bokkut ak yeneen ya bu doon dang doon bind it boo ñëwee ba fii dang ci taxaw xoolaat ko xam ne kat bokkut ak la la naan bind wa tadiqu dana xat bi ci moom alxaraatiisu kayit ya ah, lam bind kooku bind ci kayit yi bu yàggee kayit yi feeskat maanaam dafa bëgg mm, bind na lu bari rek wal mi daadu ak daaya <coughs> dégg lam bindoon boo ko boo ko bëggoon wutal daa da nga yàggee nga sonn lakin ni waaye man ixtasartu xem na ala hadi ci diwaan sitati juróom benn لأن فيها نحن كنت يوم الكفاية الكفاية للدوي للفاهمية أجي دق المنصفك أجي ماندو الصادقك أجي دق ku maandu dëgg danga ci gis loolu doy wala xasarata perte moo ci nekk wala réccu wala xaafa ak taxawloo lil mutamashiqi ñaan kuy coow al jaahili kaa ji réer al munaafiqi kaa ji kàccoo waaye nag diwaan yi ñu baax baax mu rek maanaam kuréer ku naafeq perte la ci jëlee ak ak dog dootu xeggati mukk ci yàlla du demati dégg nga awalaha bi ci njëkk mooy taysirul wusul ila xadrati rasul loolu mooy mooy muqaddimaam mu ne way lii dana mel nga muqaddima bi fatu rahman rahim fi taaliqi ci commenté ala baadil mawaadi ci lenn ci barab yi maanaam saraxawu diwaan bi waaye yenn barab yi la leeral ci suuf dégg nga noonu la ko tuddee lii muy bind moom la tuddee fatwa rahmaani rahim ubbeeg yàlla mi aji yérëme yërëm ñëpp ci àddina ak àlaxira ci commenté ci lenn ci barabi diwaan yi lenn ci barabi min dawaawi ni cheikh ci diwaanu sëriñ bi ibrahima di cheikh alaaji muhammad bun xasan ka fanka ñeel sëriñ ibrahima ñeel koon alaaji muhammad bun xasan ka fanka miskina miin moo ko latafa yàlla na ñeewante allah yàlla bii ci amin yàlla na ko yàlla yaram moo defar diwaan bi su ko defee eh, maanaam bi bàyyi ko taalif ay moom dafa commenté ay kii mbir ci biir dégg nga mu ne alhamdu cantillah ñeel ne alfatiha yàlla muy aji ubbi li ma xafee ñeel la nëbb na min maani alfaaz yi ci gi lay firi wa shukru sant law ñeel na ko man na ci na bii ci moom ali naa ci من مصاحبة الأيقاظ تي عندك نيو هيوني نيو سنتي الله تي ماي جيم ني ماي نيو عندك نيو هيوني عندك نيو هيو سنتي الله نغ هور دا دال مرو ما من احب نيت كم عندك رك لاي بوك دك والصلاة والسلام والسلام على مجي على سيدنا النبي صلى محمد محمد القائل كعم النب إذا تعطي مولاه جمت تقو برمو يونتي محمد ني جمي دا شي توك يالله بما و عندك لم عندك نك من اللي نتي نوي و يغلاس اك مرلو كيفيري يونس تميت كو نوي لون دا فا لام و نوي و دا فا لام و جلال توتي كو خامني انا بشير لا نذير لا دا نا مرلو كيفيري وعلى علي اك مين و صاحبك صاحبم و اتباي اك نكو توب الذين نيو خامني ان تنو سوني لا نبي ما سي خام خام تعلم انت جانغ و تعليم لا جانغ ريكو ñu ngi ñaan yàlla julli ci ñooñu yonente bi ak saxaba mi ak ñaa topp yonent beeg saxaabaam ak ñooñam ñi nga xam ne ñoo sonnewoo jàng xam-xam jàngale ko xatta kasoro ba mu bëri fiim ci ñoom ulamaaw borom xam-xam yi wal xufaadu ak mokkalkat yi saxaaba yi noonu lañ meloon bu baax du gannaaw ma sant yàlla di seen ci faadaal yi taaliqun ab commentaire maanaam wala ak leeral ala baadi mawaadi yi lenn ci barab yi min dawaa yi ni Mawlana Cheikh Ibrahima ci diwaanu suñu kilifa Cheikh Ibrahima al Kawlaxi nafaanaa yàlla nañ jëriñ ala yàlla bii ci mu amin talab boobu sàkk na ko mi ci man alaxum mbokkum asaariq bi aji dëggu wala xabib ak sopp ba alwaami ko gaaji sopp alxaalimu borom xam-xam ba alaaji abdullahi ay yasaar attijaani dégg nga moo ko sàkku ci man xam naa ñii nag sëriñ baaj yi moo leen gën a xam ataamu yàlla na ko lexel wala boog yàlla na ko lexel min simaari maarifi ci meññeti xam yàllaam addawaani daway jege amin dégg nga hmm, yàlla na ko yàlla leexal ci meññiti xam yàlla yu jege yi bu kuntu nekkoon naa ana man ma cheikh aboubacar atiq la tafa yàlla ñëwante la rabi ci moom àllaq naa commenté nañ maanaam leeral nañ ala baadi mawaadi ci lenn ci barab yi waaye wastabaat naa ñu soriloo bayaana baadil mawaadi leeral lenn ci bara yi dégg nga hmm. yenn yi lañ leeral yenn yi ñi bokk bi waasitatil axi ci ndimbalu mbokk ka leen dimbaloon bañ leeral lañ ci mën a leeral nag mooy mbokk ma alam jëdd ku tedd ka wal kaw ka bi ak biddiw ba ala sàll ka texe ka ala alimi koy borom xam-xam alxaaji mahmoud salga kii moo leen dimbale woon ci loolu istafadaha jëriñu na loolu fii kawlax ci kawlax maanaam kon alxaaji mahmoud salga bi dafa ñëwoon kawlax am ci yenn firi yu yu yu rafet ci diwaan bi mu ñibbi si jàppale leen ci ñoom ñu leeral leen ci diwaan bi def ci ay commenté comme ni koy ci biir diwaan bi dena am ay commenté ci suuf mu ne fa surtout man yokk nag xaala taaliq bi la commenté xalaa jëmee maa taqadama ci kaw mboolem la jiitu lañ njëkkoon a am nag ci ay leeral ci diwaan bi ma yokk ca dara waa xastuma commencé charxal xari bi di leeral la tumuranke fiyaa ci diwaan bi ndax ñoom yenn yi lañ leeral yenn yi nag dafa xawoon a jafe ci ñoom mooy wastabaat naa googu mooy yenn yenn barab yi neexul neexul woon ñu dégg ko daal ndax sëriñ bi fu ne lay waxee dégg am na yuñ leeraloon am yu jafe woon yéen ci leeraloon ne bokk na keneen ci dimbaloon El Hadj Mahmoud Salga mu ne moom nag mu yokk ci sarxal gariib bi sarxa baat yi tumuranke fiyaa ci diwaan bi mais sixaax yi jëlee ko si dictionnaire bi ñuy wax sixaax ak mun jit الوفاء والوفاء في أخبار المصطفى كبارو في بير يونتي على محمد صلى الله عليه وسلم يي سيحا من جيت يو يي ديس ديس نير لا يوي لا جيلي يوي لاي خول بات بوم غيس رك مو جاخال كو مودم خول كو فوفو نيو ليرال كو سي بيت ديوان دينغ نون لا ديك باسكو ديوان تمي لوغا لا رك ليتيرال لوغا يي واخ نون لاي واخ واي مانا ينا مورو بوك مانا يي خودي اك isaaraat yi kooku moom leeru doomu yàlla la ma koy firi dégg nga waaye buñ la firilee baat yi da nga xam maanaa ye jëlit wafaawul wafa bi axbaarul Mustafa téere la leeral ci yenn baat yi tumurank yi Mustafa tujaay ñu naa mën a seeq si sëriñ bi naa si jaxaa xëy na wastamattu la wastamattu la war a doon ndax uslubu waxin bi daa niru ne wastamattu la tëbboonaa mu ne cheikh si bi naa si jihaa ki defar diwaan bi dafaanaa ye nañ jëriñ àlla wàlla bi ci mu amin mu ne nag commenté yooyu ma def si diwaan bi dama cee jëlee tëbb ci cheikh ibrahima radiyallaahu anhu mi nga xam ne moo ko defaral boppam imtisaala ngir topp li am di seydi ñee sama ndigalu sëriñ cheikh euh, cheikh alaaji aliou siise sëriñ bi alaaji aliou siise seydi moo tax mbaax gu am ci pay bi rek loxo mën ci biir radiyallaahu anhu war daaw mu ne sama sëriñ seydi alaaji aliou siise moo may ndigal ma tëbboo ci sëriñ bi moo tax dama tëbboo ci moom kon du wastafattu wastamattu la doon lamma axbartu ba ma ko xibaaree moom Seydi Ali wa nahnu te fekk ñun fi kawlax ci kawlax ani na man sharatu commencé naa fi taaliqin ci commenté ala dawaa bi ni cheikh ci diwaanu sëriñ bi damaa wax Seydi Ali ne ko damaa bëgg ko damaa bëgg def ay taaliq ay leeral ci diwaan fa qaala mu ne ma haasi li himmatun yittila aliyatum bu kawe istamiddaha tëbboo ko min a cheikh si sëriñ bi kon fële wastamattu la war a doon mu ne yaa ngi def lu kawe waaye nag na ko na nga de tëbb ci sëriñ bi moo tax mu ne ma ñaan ma jëlee tëbb ci Cheikh Ibrahima pour mën a def taaliq ci diwaan bi waa daal yi amrun mbir la moo xam ne amrun digle la bil istimraari ci continuer àla istimraari ci tëbb la ma digal laal mooy mooy lu ma mën a duggati rek na ci sàkku tëbb ci Cheikh Ibrahima loolu laa déggee ci li ma Seydi Ali wax so ni nag man maa giltu dañu ma mustamilan daa ji tëbb minu Cheikh Ibrahima wa bar naa xibaar waax bar naa xibaar nañ الشيخ سرين بهذا بهذه الخدمة كبيرة سرين دينغام كبيرة اللي جاي لها بقى بهذه الخدمة نو واحد باي لي نو بقدر واستأذن مد سب اللي قال أنا أخم بقى المذكور من تدو الشيخ سرين بي دينغا في تبي بين بقى من تدو ماي بقى مم من تدو ليه مم جزء من محمود سلك دينغام moo diisoo ak bi fi tamit kutub bi ci mool téere mi wa dawaa wi ni ak diwaan yi mooy daal dafa bëgg mool bàyyi ak diwaan yi fa asina mu may ko ci ndigal bàyyi may leen ci wa amara mu digal Seydi sama sang Alioune Cissé mu digal Seydi Alioune Cissé fakkatam mu bind al isma ndigal la bi xadrati ci payam su ma dafa ma mu jox ko ilay ci moom Seydi Alioune moo bind ndigal li jox ko ko ne ko may leen ko ndigal pour mu mool téere yi fa waqaa mu ta mu mu mu mu mu koy tuddee sax mu tampon alay ci kawam wa khatamu mu kaste ko bi khatimi ci yarom ci dal yi moko bind de nga jox ko ndigal lolu su ko nak euh sëriñ bi def ci def ci tampon way ne may na ci ndigal wa tabaa muul na alaqu mbokk mi xaasa bi al izna ndigal la bu ko defé ndigal liñ ko mayit daf ko mol yul mu di takal bi kulli ma taba ci lépp lu mu muul min kutubi cheikh si téere sëriñ bi téere bu mu móoluti rek def ci ndigal loolu pour war ne dañ ko ci may ndigal waaw téere bu mu def rek dana ci def ndigal loolu ak tampona dégg nga pour war ne may nañ ko ci ndigal nafaanaa yàlla na jëlee la yàlla bi ci ma amin wou sammi danaa tuddee lii ma bind bi fati rahmaani rahim fi taaliq ci commentaire a baadi mawaadi leen ci barabe min dawaa bi ni cheikh téere bii muy defar nag moom mu ngi ko tuddee fatu rahmaani rahim ci commenté lenn ci barab yi ci diwaanu Cheikh Ibrahima ci diwaanu Cheikh Ibrahima kon du lépp la la saraxa waaye yenn béyt yi la saraxa asalu maa ngi ñaan allah yàlla al azim baa ji mag waata wasulu maa ngi jot li bi nabi ci yonentum al mamduhi ba ñu bi ci téere bi karim baa tedd waatu bu maa ngi sàkk bi barakati laa si jihaad ci barkeb ki defar téere bi moolana Cheikh Ibrahima ane kon mu nekk saa yoo jëfam ji haada bii wa xayruhu ak budul maqbulan duñ nangu mardiyan duñ gërëm bii ci moom mubarakan fiihi duñ barkeel yal na yàlla gërëm jëfi baay ji ak jëf ju dul moom dégg kon moom baay la njëkk a ñaanal wala mu ñaanal boobu waa nu jaasiya mu fay dégg nga cheikhana suñ sëriñ gën ci fay yal na yàlla fay mm, bi fay gi gën ci fay yi fay noonu ak moom maataraka bàyyiwut matlaban càkkutéef dun yowi yéen bi ka jug àdduna aw diiniyan wala ka jug diine aw barzaqiyan wala ka jug barzax aw uxrawiyan wala ka jug alaxira illaa talaboo lu may sàkku na ko la naa ñeel ñu kama talaboo comme ni ko sàkkoo li naf si ñeel sëriñ lañu am mu ne sëriñ la boo xam ne ni bàyyi lu taalibe mi dara lépp luy luñu war ñaan ci mbiru àdduna wala mbiru diine wala mbiru barzax wala mbiru alaxira ñaanal nañu ko ñaanal ko boxam kon yàlla ko yàlla fay fay gën ci fay وما ترك بايو شيئا بير وصف ملنا المادي هنا ويتقي بيش موم سيدنا سنسان محمد محمد صلى الله عليه وسلم <coughs> إلا وصف ورمي ملنا بيش موم وزاد يوكنس أشياء بير يوكنس فاتر هم راونا رأس لب بلو تقو كتقى يورن تبير مون تقى نكو يورن تبير يوكو تلو خاني موم رأس كو تقى يورن تبير كون دجل لنا لا تقلق وان تي تقى كدية موتح مراولين وتوصل جوت لكونا كثيرا لبري بصلاة سجل عليه يورن تبير الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دم كي جسم بري بري شيء قصيدام مجد شيرن تيم وهذا لي أمر بير لم يمون من دب عليه عليه تيم مجد شيرن تيم مم كنا بيرن تور تيم وتوسط رجعت لكم نبي شيرن تيم وبيهد بي أكيم بارام صلوات الله خوري على عليهم يالنا كنيوم وبأصحاب أكثر رضي الله عنهم الله ورانهم كنيوم وبالختم أكتيكي تجويل آية مولانا أبن عباس من كلفة أبن عباس أحمد التجاني wahazaali jaay sunu dagal la moo jot dëkku ci wëlli yàlla kooku dagal naa la saxi ci wax ji wér almaamul bañ jëfe bii ci moom teewul nag am na kuréel bu ko weddi waaye daa jot di ci wëlli yàlla mu amul sikk ne dagan na boo bay damaa xoo ba nga xam ne moom mu ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam istisansere taraaw da koy gis yan saxu mu di la biir wa yaxisu mu di waar wa yurshidu mu di jubal wa yaxiwu muy muy muy fiir ala diini islaami ci islam bañ ko ko uh, gotti waaye dama muy ñaanal yàlla ak toroxtaane ala man naawa aw naawa aw ci ku sori ci ku noonoo lislaam waata ani na bi taraakiba ci ay toggale taajusu dana lott al fusaxaa way fasaaxa yi wal bulaxaaw ak way am baraaxa yi an ci moom indi na façon waxin yoo xam ne ña gën a am baraaxa mënuñoo bindee noonu salimat mucc na min don fi taalif ci lott ak taalif don fu taalif mooy wax wax joo xam ne naxu nanguwu ko xam nga waxee xam ne naxu nanguwu ko dégg nga ta tax wax ji du leer hmm? waxam ji nag amul lool dégg nga hmm? waxam ji lépp na ko ràbbee rek noonu la ko nuxaat yi wala boog hmm, bañ a ni nga war a bañ ko toppalante dégg nga ra'aytu sayyidina muhammadin أكبر الخلق بوخن رأيت الخلق محمدا سيدنا أكبر كي بخم لنا وقت بس كن نقرا بلان تباهر فصل وقين ياك فا ياك فصاوي من مسكورة دين وتنافر كلمات أكفنون تي بعد ما بعد يا خم ندو كم أنا تدو دفعي نقد ينقد تدو قولي نك شيء خم كم برا غلا دفعي نقد ينقد تدو قولي سلام يا من يلول دلوكو كم لوا وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر دانت نافل الكلمات بس كباري منو قط دمرة قبر حرب عند مكان قفر ولا إذا قرب قبر بوكي واحد دبرة كم هذا جاوله من ما أنا واحد لقد جاء خم نلام منو قط دم ولا متنشي وتعقيد أما فصو بقسم ينتنيار قادم أنا بعد فصو ولا ما أنا يفصو من متنشي ما أنا بفصو ما يوحلو خم ما أنا بليرو منو خم ليكي لأن بقى naa la ndax baat yi mu utilisé joxewul maanaam boobu mu ne moom mucc na ci baat yi euh, taaxidu al lafz yi tamit mooy nga joxe baat boo xam ne euh, joxewul maanaam bi dégg nga loolu mooy taaxidu lafz yi taaxidu maanaam bi mooy nga bëgg wax maanaam boo xam ni leerul maanaam bi nga bëgg a joxe sa wax ji leerut moom yooyu ñaar yooyu yëpp mucc na ci mucc na ci taaxidul maanawi mooy maanaa bu leerul ndax ni nga dugalante baat yi baaxul loolu mooy waral nag maanaam bu leerul dugalante ko no baaxul wala nga def ko noo xam arab nangu ko su ko defee nit ki du ko mën a firi eh, tey par nga fi mu nekk nii wastafatu googu ni ñu ko bindee nii su ma ko bëggoon a firee wastafatu damay xaw a problème tuuti parce que baat bi si boom baat ba ñu fa teg dañ ko yàq wastamatu lañ waroon wax kon saaru baat yooyu nga xam ni ni koy dugalante dafay tax maanaa yi du leer nit ki am ci problème loolu amul ci téeréem ci dégg nga donc taalif mooy taalifee noo xam ne naxu nangu ko tanaafuru kalimaat mooy jëfandikoo baat yoo xam ne nit mënu ko tudd taqid lafzi yi mooy jël baat yoo xam ne joxul maanaa yi nga bëgg a joxe tànqitu maana wi nag mooy ràbbee sa wax ji noo xam ne ni maanaa ba du leer loolu yëpp mucc na ci wa taxalat takkaayoon na bil muhassanaati lafziya ci lay rafetal yi ko jug baat am na yoo xam ne dafay rafetal wax ji waaye ci façon baat bi rek la comme daaneel yu bokk moom jëfandikoo na ko ak dégg nga wal maana maana yi nga xam ne nii am façon waxin yoo xam ne ni dégg nga waaw sëriñ sa cër la saa ba pare nga leeral ko macha بعد ما انا يو خمني دا فاي رفتال وحجي بس خمتي ما منو خمني بوكو بخي وحجي دو نيخ وحنا لا بعد يو نيرو اي مو مو وحن برك مو رفتال وحجي واي تيميت سو جيفانديكو مانا دا نغا جيفانديكو كونترير با لا وحجي گنا رفت واي جيفانديكو مانا كوم نغا القائم اجي تخاو ونا يما نراو لون رفتو يو يب waxtawat làq na ala maqaamaatil wilaayati ci maqaama moom téere bi ci maqaama wilaaya wa manazira ak wàccuwaay wilaaya téere bi am na ci wilaayatu euh, maqaamay wilaaya ak waay wilaaya loo xam ne ni moom rek ko dajale wa jamaa dajale na kasiran lu bëri min adaabi suluki ci teggin soobu wa seyri ak dox ilaa malikin muluk jëm ci buuru buur yi képp ku bëgg yegg ci yàlla teggin yi nga war a xamee téere bi dajale na ci lu bëree wa amara digle bi adaabi sukkaanil mm, xadarati ci teggini ñi dëkkee ci xadara ba dégg nga maanaam ñi dëkkee ci péeb yàlla ba lépp loo xam ne war nañ koo tegg na woo téere bi digle na ko um tarabil masir yi te mooy sàkku ndollal ci yàlla kooku teggin ci la bokk waaye dem ba yëg ne yow doyal nga daanaka dajal nga yàlla loolu moom ñàkk teggin la ak ñàkk xam hmm? wa mulaazamatil adabi ak taqoog teggin bi tanzimi ci màggal ci màggal yàlla ak yonantoom ak ñu baax ñi ba tawxiir ak wekk ñi nga war a wekk loolu téere bi digle na fooral yàlla wari daa ak gërëm wala jee ak wéeru ci moom wa tawakkul ak wakkiru ci moom mu bàyyi ko sa mbiri mboolem teggin goo xam ne ku dëkk ci péeb yàlla ba war na koo tegginoo boo jàngee téere bi gis ko fa boobu jumlati boo tënkee daal fama raayatu gisuma diwaanan benn diwaan boo xam ne ijtama dajale na alaama ijtama te la làmboo ko alay ci diwaan bii lan am mosuma gis diwaan bu am loolu fa benn maa xoo ba nga xamee ne moom Cheikh Ibrahima léegi-léegi ite zallalu mu ngi toroxlu wayete waadoo muy suufi suufilu wayete saaxaru muy ndaw ndaw benn yi day mali kii ci kanam buuram mm, boromam ici changé taraaw da nga koy gis yëskur muy tudd maam mën na la xewal na la la bii ci moom ali ci moom léegi-léegi mu toroxlu toroxlu toroxlu ma ne waa kanaa kii dafa amul dara léeg-léeg nga gis ko mu tudd may tudd may ba nga ba nga ne dafay bàkk fekk yëskuru dafay sant rek ويستزيد ليلك لي الله ويتكفف من لي ربه برمان سبحانه لي وتعالى كبير لا شك لي بن سك ولا ريب لي بن ورم تأمن من لي عنك يدي وان بي لي مسلم تلفيات مم وتردد لي باغان تي فيها تي موم موي ديكو جانغ ديكو جانغا ديكو خول ديكو خولات علم دنا خم يقين تي لوهور انها ني ديوان بي خرجت جنو min sadri akbari aarifina ci dënnu ki gën a mag ci aarifina yi wa min zawqi akbari aqrabina ak ci mosa ki gën a jege ñu jege yàlla yi boole ñu jege yàlla moo leen gën a jege yàlla boo liiree diwaan bi da nga mu ne da loolu da nga yëg loolu walim laalu tax ba di diwaan bi du noonu wala si joxaa tekki ko rab boo xawsu zamaan yi mooy xettali jamono wa barakatul awaan yi mooy barkeeb jamono yi mu jaddidul millati mooy beesal yoonu yonent ci bi wa diini mooy هم ربنا عارفين المغير لأنه ما يكون المغير نقم يالله مولانا سنسلم الشيخ إبراهيم التجاني سقانا يالله ينان الله يالله من بحري تجي دعظ من الأواني تجي ندب يغن ري ويالتوه يالله نيوان تبيه تمام في ساعات الليل تي وقت بدي ونهارك بچد في تجارتي أكي كوميرسام خينا جامع يالله مرق لهم لا تجارة لن تبور يالله إيجف لكم تدي يالله ما هلا دلوكم على تجارة لا دمين وقوم يسوي لنا مسل جان بن عذاب علي ما ينجم جامع يالله دي جهاد شيون يالله من بام جه لون لكم يانا يالله بركيل كو بركيل كو أي وقتهم تيوم بلن كو لجيم فين وانك ممسرين بو مشيخ رايما دلانو يحب دنا بقال خير لباخ واهله اك ني wa yabxudu dana bañ al baatila caaxaan wa ahloo ak ñooñ caaxaan loolu moo doon jikkoom yuxibu dana bëgg nasral ilmi tasaare xam-xam an naafi ba aji jëriñ xataa yasila ba mu yegg ilaa uzuni kulli mustamiin ci noppa képp kuy xerewlu wa saamin aji déglu rek maanaam dafa bëggoon di joxe xam-xam joxe xam-xam ba boo bëggee jàng boo bëggul jàng da nga xam mustami mooy koo xam dafay déglu déglu setantal saamin nag moom day déglu moom yoonam nekku si déglu wut pour setantal mu ngi dégg rek waaye mu ne Cheikh Ibrahima daf doon jàngale jàngale jàngale ba nga xam ni ku bëgg du jàng sax moo da nga far jàng far mu ne noonu la meroon waaye te akkadu dana fade nag ala jamil ulama yi ci mboolem borom xam-xam yi wa talabati ilmi ak sàkku xatu xam-xam yi an yeddoo ñu ñaanal li man ñeel koo xam ne xaasaar yi himmatoo mooy yitteem ubbuxeetoo mooy càkkuteefam mu ne koo xam ne nii nii dëgg-dëgg kuy borom xam-xam war nga ko ñaanal kuy jang kat war nga ko ñaanal loo koy ñaanal fi xeyri ci yiw wa ziyaadatin ak yokk wa bi husnil aqiba ak mujj gu rafet wal xaatima ak mottali gu rafet nasalu ñu ngi ñaanal la yàlla husnaha mottali gu rafet amin ñu ngi ko koy ñaanal di ko ñaanal mboolem jullit di ko ñaanal suñu bopp man xaalu foo wax na lii bi lisaani ci làmbañam wa katabu bin na ko bi banaani yi ci baaraamam Mouhamad Sani Kafanka at Tijaani kooku miinu ma ko dégg nga fa yàlla ñëwante la yàlla bii ci mu amin suma baarakat bi gannaaw moom bindee xaajal xorof yi ne xaraf raaytu gis naa ci gént mu ne gannaaw moom bindee yi dafa gis dafa gént bàyyi a wala yàlla yi daal ñetti lay gént ne gént yi ay bisaaraat la hmm, am na lu muy nga du yëpp ay gént waaye am na gént yoo xam ne am na yoo xam ne seen gént gént la mu ne raaytu gis naa Cheikh Maulana Ibrahima fi jamaatin ci mbooloo waaye te fekk man fi jamaatin maa ngi ci mbooloo saa yore ñëwee dox fi tariqi ci yoon mi fastaqbalnaa mu jubluñu bi wajin ci kanam tariqin gaa ji booy kama huwa adatoo comme ni nga xam ne mooy aadaam mu ne bàyyi noonu la meloon moom saa yoo jàkkaarloo moom mu kanam gi dafay leer nañ da nga koy ñëwee daal comme ni bi sallallahu alayhi ubbi kanam gi mu ne ba mu ko gisee ci mbooloo rek moom dama ko daan gisee ñooyam mu dajeeg man ci kanam gu ubbeeku wasallama naa wasallam naa ñu nuyu alay ci moom su mastad naa nii mu jegeel ma boppam fa danawtuma jege minu ci moom lii nag gént la faaxastu ma commencé na uhdi di hadiya ilay jëm si moom hadaaya ay hadiya ba mu ñëwee ba toog ci wetam di ko jox ay hadiya yu bëri boobu moom yafaraw mu ngi bég waskuru muy sant aadaytu jox naa loo ñëw asiya ay mbir kasiratun yu bëri jox naa ko hadiya yu bëri maa tasakkatu fàttaliku ma alaana léegi axeera jëmmi jëmmi hadiya yi xawmatuma ba ma yeewoo xamatuma lan laa ko jox illaa tiiban lu mooy parfum yu sama yu tuddee ko abaanat parfum abaanat nag xaw ma ko waaye xeet la ci xeeti parfum yi mu ne boobu moom sell na ne joxal na ko dégg nga way hmm? laa sihaaran mooy ak dégg nga eh, eh, njiit laay sihaar mooy yëre njiit laay yaakaar naa jàngoon nañ ko cëpp fiqu luxa wala nu xuudan ak ay ci njiit ga am nay koppa tuuti lii daal laa seetlu ci li ma ko jox parfum abaanat ak benn njiit ak weccet wa awaltu ma taawil ak tiiba parfum ga bi ziyaadati iqbaali naasi ci dolleeku jublum nit ñi alaa ji diwaawin ci la diwaan loolu moo xam na mu ne parfum ga la ma ci la ma ko firee ma ah diwaan bii de may defar nii ah nit ñi daañu ko jublu bu baax a baax waaw wallaahi nit ñi nañ ko waaw waltu ma taawiri achaara njiit laay ga bi ziyaadati sitri si yokku kiiraay mu ne ah njiit laay gi mooy wane dinañ am kiiraay wazinati ak taar waaw waltu ma taawiri an nuquuda weccati bi ziyaadati ajri ci yokku fay ah weccati de mooy wane yàlla danañu fay incha allah wallaahu yàlla alamu waa ji xam wax kamu moo gën a xereñ su ko defee loolu muqaddima la boo xam ne dafa aju rek ci wàllu wàllu wàllu wàllu téere bi wala mu ci tudd ci ci yàlla lu ci dëng ci ñun ñu ko doon ci la ñu ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah tawfiq illaa billah alayhi tawakkaltu wa salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh